xam nga préfet procureur comme li wax sànq mooy ñun déjà dañuy remercier président de la république ci ndogal bi mu jël pour bàyyi ki nga xam ne moom mooy euh, Karim Wade génn ko ci prison bi lu ñuy rafetlu la parce que moom dafa nekk koo xam ni sunu mbokk la baayam fii la nekk ci dëkk bi donc mu fii la nekk ci dëkk bi mu bu ko defee ñun dañuy koy sant di ko ciy gërëm. leneen nag mooy affaire procureur xam nga loolu duñ ci mën a sori parce que moom moo jël décision boppam mais ñiy taxaw di wax naan ay dil ak du dil dañuy wax lu leen neex rek parce que yëf yi jot werantee li président de la wax mooy loolu jarul werante jarul dara euh, protocole Rebeuss protocole Doha yooyu yëpp amul solo ki nga xam ni yow moom moom la ñuy wax te moom am nañu yaakaar ne moom li ñuy wax moom it loolu la. parce que tamit mun na kaa wedd que amuñu benn firnde ni moom moo def baa deful waaye jàpp nañ ci kàddoom moom mu ni jamono ji nga xam ne ci la séddoo di am ci la ay bandi di xuloo jàpp nañ ci ay kàddoom mu wax ni moom jamono ji nga xam ni ci la nekk ci ngóor gi ci la am moyens yi nga xam ne moom la am léegi fekkee werante am na protocole am na ak amul jarul di woo ay doomu aadama yoo xam ne fekkewu nu ba ñuy def ak ba ñuy jël parce que ñooñu mun noo seede ci lu xamul procureur sax jor mu ciy dugg ndax tëjëg tëj bi dafa yàgg ci réew mi te taxul fee ne moom nitu diine la kàddoom yëpp mu yëkkati danga ko ci rafetloon alxuraan la yëkkati ak hadis na jël alxuraanam jël dem ci jumaa ji nga xam ne moom la daan faral du jullee te dafay yëkkati kàddu alxuraan muy muusante teg alxuraan waat ci yàlla nii defuma mu jeex. bu ko defee ñëpp nañ jàmm waaye am na xam nga am na loo xam ne mënoo fexe ba lijjanti ko tànk borom rek lijjantul ko moom te moom rek moo mën a leeral doomu aadama yi ci loolu mais werante gis yëpp werante la ci li ñu xamul donc looloo tax nu ni vraiment yu fi jaru ko na jéem a boppam jéem a dem dem fa nga xam ni fa la ñuy mbaxane nekk benn ci wàllub diine jarul ñu egg neen mu def fa waat waatam mu jeex Euh, au conseil Kébémer est ñu mu tànn. non loolu egg seegun ci euh, sunu sunu sunu ndaje bi nekkul lu dul euh, jéem a fexe xool nan la ñuy mën a. sunu parti muy APR jéem a mobiliser ak animer ko ba li nga xam ne ngi koy jublu ci ay wàllu élection yu ñu jëm nu jéem a fexe ba génn ci ay ndam loolu nekkul nag lu dul nun ñëpp nu àndandoo nu dajaloo bokk ndey bokk baay muy responsable yi fi nekk yëpp xale mag ak ndaw nu jéem a àndandoo jéem a fexe am ndam loolu moo tax nu jëf ko tey jii dajaloo fi parce que xayma ngeen jafe-jafe ngeen am ba tax ngeen am ay jël laata ngeen di waajal euh, jogante yi ngeen dëgg. waa loolu lépp xool nañ ko euh, jafe-jafe bi ci gën a rëy te nit ñu gën kaa wax mooy problème de moyen parce que xam nga parti dafa laaj ci yëngatu dem ak dikk. ak yenn soxla yi te Kébémer gi nekk nii di politique nekkul dëkk boo xam ni dëkk bu neex politique la ndax dëkk boo xam ne ay màggatu politicien noo fi ne ay am façon yu daan defee ak daan doxe ak doomu aadama yi ak daan jëflante noom mënoo xëy rek nga bëgg a changer jikko yooyu ak doxalin yooyu waaye xool nan xam nan ban yoon lan war a jaar te incha allah am nañ yaakaar dinañ ci jaar te jaar ba dina gën a yomb suñu xoolee li nga xam ni président la république moo ngi koy def ci réew mi ci nu muy liggéeyee projet miy def ak li nga xam moo koy def ci biir région de Louga ak département de Kébémer loolu ci la ñuy sukkandiku jëm cee taxaw waxtaan ak population yi nga xam leen soppi ko ak changement dina te amee yaakaar ci bi nga xam ni moom moo fi nekk muy président tamit yenn doxalinu responsable politique yi nga bokkal waaw ci dëkk bi. voilà xam nga fii dama ni am na ñoo xam ni nan nit ñi def ndànk parce que euh, dëkk bi dafa am ñaari xeetu politicien am na ñoo xam ne du ñëw lu dul nu fal leen fal leen ma fal leen ma fal leen ma suñ leen falee nu dem bàyyi askan wi ak seen i coono ak seen naqar waaye ma leen nan ci yeewu jàpp ni politique du élection bu jotee nga ñëw campagne nga dem politique mooy nga nekk ak doomu aadama yi suba ak ngoon ñu nekk seen i soxla. seen euh, lépp loo xam ne ci ay jafe-jafe nga taxaw ci nga teew ci ci loolu la nekk nun bu woo suñu responsable yi nga xam moom la nekk ci ànd ceeg noonu bu ko defee ni ñu mën a ràññee ñi nga xam ne fee nekk pour seen poche ak ñi nga xam dañ fee nekk pour askan bi mën que si élection yi ngeen di génn gis ngeen ay am na ay jéego parce que boo xoolee fan jógee ci élection locale yi ak léegi élection local yi ñoo ngi tolloon ci ay junni voix boo xoolee référendum bi egg na ci junni ak juróom-ñaar euh, téeméer xam nga loolu am na jéego bu yaatu bu rëy waaye doyul ndax nun nekku ni di ma naan benn la woon ñaar la déedéet dañu war noo nekkoon ñaar tey noo nekk p noonu loolu tax a jóg waaye nekkun fii di wàññi ay ñaata voix yokk nañ voix wàññi nañ voix dañoo bëgg élection yi di ñëw nu nekk ñuy gañe te loolu mën na ne te lool pour mën a nekk mooy nun ñii nu toog dajaloo waxtaane ko du ci loolam nekk ñii kawe maire soxla nañ ko ndax soxla nañ ko parce que am na ñu fi nekk ñoo xam ne ay militant lañ ak ay responsable yu ko yu ko bëgg donc euh, saay loolu amee euh, bu dee ci wàllu élection la ndax conseil de la république ay conseil élus locaux noo koy def nu deen ko xeex waaye bu dee président it am na lenn loo xam ne moom da koy joxe mu nekk ci wàllam ñun noo ko cay ñaan mu jox na ca. PUDC am ñu wax ne que maire dafa bokk ci département yu ñu fàtte. PUDC fépp la laal ci àdduna mais xam nga daanu dajul suuf amee ah, PUDC laal na fépp kay maire maa ngi lay wax tey jii maa ngi dem jóge ay côté Kaba Gueye nii booru Ñaay bi doon xool nawet bi nu mu tëddee béykat yi wàllu njiw beeg yooyu yëpp. gis naa ni euh, am na ay piste ak yeneen yoo xam ni ci wàllu ndox muy egsi foofu nit ñi du koy jariñoo mais mënut a daj fépp mënut daj fépp mais nan jàpp ni programme bi président def mooy xam na ni am na ay jafe-jafe yu am te jafe-jafe yu tar na taraay goo xam ni il faut que léegi nu jéem cee jublu looloo taral PUDC te yàlla bu defee jàmm dina egsi ci yeneen dëkk yi mais ñëpp mën noo amandoo benn yoon nga directeur des mi ñuy wax waxu gaz ak pétrole nan la ñu war a waajal. waajal ko mooy defarwaat parce que boo xoolee mooy jëm a xool sunu jumtukaay suñu euh, contrat yi ni signé yoon yi nga xam ne moom lañ fi tëral pour buñ koy exploiter ak doomu aadama yi nga xam ne noo ci fas yéene liggéey ak lépp li nga xam ne lu mën a aar euh, suñu environnement nu jëm cee taxaw nekk ci te loolu président la République ma ngi ci ndax jamono yu ñu nii li xam ne moom mooy yoon bi nga xam ne moom mooy euh, moo waral pétrole noo ngi koy defar da koy saytuwaat boo xoolee tamit ci wàllu miin code minier bi noo ngi koy defaraat donc loolu lépp moo lay wan ni ñun ñi ñëpp noo ngi jëm a fexe lan lañu mën a ba li nga xam ne moom mooy pétrole bi mën nekk loo xam ne koy exploité ci jàmm ak salaam fii ci Sénégal donc loolu war nañ ci mën am yaakaar te président bi nga xam ni moom mooy nekk président de jàpp ni moom lii lu xam la ndax géologue la te xam na luy pétrole. mais bu ñu waajul pour tàggat Sénégal yi est-ce que du main d'œuvre bu jógee bitim réew narul ñëw di. loolu président de la République xam na ko te avant sax ñuy déclarer pétrole en 2012 boo xoolee ci salon des mines waxoon na nañ créer école des mines ak pétrole boo école des mines ak pétrole boobu def nañ njàng mi xool gëstu ko ba xam yan façon lan soxla ci wàllu nan koy tëralee njàng ma na muy demee boo fay dugg noo fay duggee lan na fay jàngale ak booy génn kon loolu depuis 2012 avant tey jii quatre ans après ñu wax ay ay ay exploitation de pétrole ba découverte de pétrole loolu lay wan ni la République am na gis-gis boo xam ne day weesu jamono ji ñu nii vision am xaw naa sori lool te am nañ yaakaar ni lii nga xam ne moom mooy exploitation pétrole bi dina nekk loo xam ni luy amal njëriñ doomu aadama waaye nag du question formation rek ñi nga xam ni dañoo yore seen koom ay investisseurs ay entrepreneurs noonu jël seen alal ak seen kam dugal ko ci loolu liggéey parce que loolu mooy waral Sénégal yi mën a am liggéey ci pétrole bi parce que pétrole du question génn pétrole rek mais am na avant pétrole bi ak après pétrole loolu lépp a xool wax li nga xam ne moom mooy tax Sénégal a jëm kanam. jërëjëf merci